am nit ñoo xamne ni ñi xalaatee pour ñom sarax day wañi alal sarax day wañi alal sarax day wañi alal motax ñom pour ñu saraxé tout un problème la sa way do sarax yi way dekk bi dafa metti tan yi mom hmm, dekk bi dafa metti wa dekk bi dafa metti nga am 500 saraxé ci fukki dërëm fukki dërëm yi mëna yaq 500 yi te mo mooju légui légui nga ñew yaq fi fukki dërëm ci lu ñak fay kon li ñëk si ab jullit mu wara jang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 mais am na ñoo xam ne foo leen fekk rëy donte dañoo tuuti sax dañuy rëy donte dañoo tuuti sax dañuy rëy pour ñoom ñoo ñoo gën ñëpp ñoo gën a xam ñëpp ñoo gën a baax ñëpp seen sant moo gën a fort seen xeet moo gën a fort ah dañuy dañuy rëy ci kaw nit ñi. rëy nag li koy waral bëri na am na koo xam ne tax muy rëy mooy santam moom moom santam pour moom moo gën a fort léegi kat moo wax ne sant bii moo gën a fort parce que yàlla wax na ci benn ci alxuraan ne sant bii moo gën a foor ci sant yi waxu ko. kon sant mënul tax nit ki gën ñeneen ñeneen déedéet jëf yi ci la ñuy gënantee jëf yi considération yi ñu teg nii ay mesure la yoo xam ne doomu aadama ñoo ko teg ci la yem moo tax atta waadoo muy suufee jikko yonente bi alayhi salaatu da ko da koo dund jëfe ko yar ci saxaaba yi mais dañu koo digal dañu koo ordonné daf ñoo digal ñu ñu ñuy suufee ci suñu suñu biir doomu aadama warul yëkkati ko ci kaw kenn fii ki fi rëy kenn la mooy yàlla yàlla rek a fi doomu adama yi kon waruñoo rëyante moo tax alkibru ñu tere ko mais daal di digal contraire bi muy at tawaadoo léegi ñoom ñaar duñ daje tawaadoo mënul ànd ak kibru nit ko mënoo mënoo suufeel sa bopp rëy moom kay da ngay rëy ñu xam ne da ngaa rëy nga ñàkk rëy suufeel sa bopp loolu moo tax bakkanu doomu aadama nag bakkanu doomu aadama bokk na ci melokaan yi mu bëgg nga xam ne seytaane da ko koy ji da koy suuxat ci moom mooy alkibru mooy rëy te bàkkaar bu doy parce que alkibru ni ko yonent bi alayhi firee mooy raddul xaq wa xamtu naas mooy xeeb nit ñi doo nangu dëgg ku rëy pour mu nangu dëgg même bu daanu woon danaan la daanuwuma même bu daanu woon ci suuf danaan daanuwul danaan non damaa damaa samp sama loxo fekk daa daanu ba tax rëy moo ko koy yóbbee rëy moo ko yóbbee rëy mooy tax munoo fexe ba wax ko dëgg ba mu nangu boo ngeen toogoon fii di wax suba ba ginnaaw suba boo indi woon argument yi gën a leer soo paree moom du nangu foog mu jéem a jaar fii jaar fële jaar fële mun a fexe ba ko lu tax mooy melokaanu kibru la jikkoy rëy la orgueil la kon attawaadu jikko jullit la kan moo nettali xadis bi Abu Hurayra <laughs> kon wax nañ ni téere boo dem rek moo fa ëppale 40 xadis yi fi tazkiyati wal axlaaq moo fi ëppale boo jëlee arbaun nawawi moo fa ëppale boo jëlee bulughul maram moo fa ëppale riyaadu saalihin moo fa ëppale waxuma la nag nga dem ci butuunul ummahaat muy téere yi gaa yooyu di jële muy buxaari di muslim di abu daawud tirmisi nasa ibni maaja di bayhaqi di muwatta malik musnad ahmad muntaqa ibnul jaarud ah ak yeneen téere yi foo dem moo fa ëppale loolu yàlla def kon mooy ki ëppale lim nettali xadis 5306 xadis loolu tuutiwul kooku xadis yooyu dafa bëri abu hurayra nee na muy abdurahman ibnu saxr ad dawsi ma naqasat sadaqatun min maal yonente bi alayhi salatu salaam nee na ma naqasat du wàññi mukk sadaqatun sarax min maal alal dafa am nit ñoo xam ne ni ñuy xalaatee pour ñoom sarax day wàññi alal sarax day wàññi alal sarax day wàññi alal moo tax ñoom pour ñu saraxe tout un problème la saa waay doo sarax yii waaye dëkk bi dafa métti temps yi moom dëkk bi dafa métti wala dëkk bi dafa métti nga am 500 saraxe ci fukki dërëm fukki dërëm yi mën naa yàq 500 yi te ba mooju léegi-léegi nga ñëw yàq fi fukki dërëm ci lu ñàkk fayda kon maa naqasat sadaqatun min maal sarax wàññiwul alal kon bépp jullit boo xam da ngaa gëm ni sarax day wàññi alal yaa ngi gëm lu wuteeg la yonent bi digle kon kenn warul gëm ni sarax day wàññi alal lu tax moo yonent bi moo ñu ko wax nee na sarax wàññiwul alal léegi waxu yonent bi dañ koy topp wala duñ ko topp dañ koy gëm wala duñ ko gëm dañ koy gëm sarax wàññiwul alal ku yaakaar ne sarax day wàññi alal yaa ne ci erreur mais maana xasat sadaqatun min maal yemu fa ma zaada allahu abdan bi afwin illa izza wa ma zaada allahu abdan yàlla du yokk ab jaamam bi afwin ci baal gi muy baal nit ñi illa izzan lu dul teraanga da koy yokk ak tedd nga baal gi ngay baal nit ñi ñu naan la yow da ngaa ñàkk fayda da ngaa ragal da ngaa nooy tàppet la déedéet tàppet nga ci ñoom d'accord ñoo ko jàppee noonu mais fa yàlla loolu daf lay màggal fa yàlla da lay yëkkati fa yàlla izz la lay jox wa ma tawaada ahadun amul kenn kuy suufeel boppam ah lillahi te yàlla tax nag ah foog mu sell xam ko xam dafay dafay suufeel boppam lu tax pour nit ñi ne waa ji dafa suufe waa moom dafa suufeel boppam kii ku suufeel boppam la fekk na dëgg-dëgg suufeelul boppam de nekkul lillah li aj lin naas la wala lin naas koy def pour nit ñi dagg ko moo tax xadis bi dafa préciser précision bu am solo mooy maata waada ahadun lillah amul kenn kuy suufeel boppam lu dul yàlla tax résultat ba la ciy jële illaa rafaahu llah yàlla koy yëkkati bëri waa na koy gis yàlla yëkkati ko mom xamul sax lutax yàlla yëkëti ko lan moo tax muy da soufel bopam dafa soufel bopam amna riwaya riwaaya man tawaada lillah rafaahu allah ku soufel sa bop te yàlla tax yàlla yëkëti fi wa ma tawada ahadun lillah illa rafaahu allah amul kenn kuy soufel bopam ci yàlla rek tax lu yàlla yëkëti ko hadith bi limi soñé moy dafa bëgg ñu saraxe sop gi sop ñukoy saraxe istihbaabu sadaqa loolu benn la ci beneen bi naf yu naqsu sadaqa lil maal moo day dàq xar dafay dàq ne sarax day wàññi alal da koy rejeté ñetteel bi li muy jàngale mooy afu al ibad yusabibu al izzata inda allah mooy baal jaam yi jaam yi nga leen di baal daf lay daf lay yëkkati fa yàlla day jàngale it ne arifatu inda allah yusabbibuhu attawaado aw yusabbibuha attawaado yëkkati ko fa yàlla bokk ni ci li koy sabab mooy suufeel sa bopp te yàlla rek tax ku bëgg a yëkkatiku ku bëgg yàlla yëkkati la suufeelal sa bopp te yàlla tax sooy jéem a yëkkatiku yàlla wàccee la comme ni mu ñëwee ci beneen xadis amul kenn kuy jéema a yëkkatiku lu dul yàlla illaa wadaahu llah lu dul yàlla wàccee ko lu dul yàlla wàcce maa tarafa ahadun illa wadahu llah amul kuy jéem a kawe lu ci kaw nit ñi jéem a yëkkatiku yëkkatilu loolu yàlla wàccee la kon nit ki bu muy rëy réelu bu yëkkati boppam na bàyyi yàlla yëkkati ko nga yëkkati sa bopp ak yàlla yëkkati ban moo gën yàlla yëkkati la moo gën de parce que yow boo yëkkati sa bopp da ngay jéem a yëkkatiku mën ngaa yëkkatiku mën ngaa bañ a yëkkatiku mais yàlla bu la yëkkatikoo foog nga yëkkatiku waaw ah, bàyyi yàlla yëkkati la pour yàlla yëkkati la lan ngay def waaw suufee la sa bopp te yàlla tax yemaleel sa bopp ak ñëpp bul xeeb kenn